def nañ xam nga état du jënd état lu muy mën mooy teggi taxes yi. Mhm. fexe euh, yombalal nit ñi ñu am ndox ñu am courant ñu am sécurité. Mhm. Euh, transport bi aussi lépp lu ciy taxe ñu teggi ko loolu chaque année. Mhm. mais nag loolu moment la rek boo xam ne un mois un mois et jour quarant cinq jours mais bu ñu fàtte ne éleveur bi def doon sàmm ay ati at juróom dafay boo xoolee juróom euh, fukki at ak fukki weer ak benn yi kenn subventionné wu ko. ci wàllu aliment wala ci taxe wala ci leneen bu desee benn weer nga jox ko subvention na nga xam ne moom amoon na ay frais yu jiitu nga koy ne kon il faut ñu bàyyi xel ci veer yi nga xam ne yow da nga ko doon dundal sa jur gi te compte bi dafa métti euh, euh, sàmm gi dafa métti ñi ci euh, wekku pour am dañuy dafay metti donc loolu yëpp nag boo ko dajalee mhm. munoo xëy benn jour rek nga ne nit ki comme tegal naa la taxe na mbir mbir mi yomb déedéet du mën yombee noonu mhm. mais nañu jàppalante borom xar yi dawal yërmande mhm. mais état bi aussi fexe bu beneen yoonatee comme ni ko euh, euh, euh, état bele doon defee maanaam gën a teel a farlu ci mbir mi joxe financement yi nit ñi dem wuuti se euh, euh, xar yoo xam ne ci biir réew mi lañ koy wuute ndax bu ñu ne auto suffisance en mouton ñi ngi ciy def ay jéego yu bari mais bu ñu sañoon ñiy jaay xar balaa keneen di ñëw di ñu jaay ñi jënd ci xar yi nga xam ne suñu biir réew mi jàpp nga ni plus de huit cent mille euh, moutons yi ñu wax dina dina dina. waaw jàpp naa ne comme ministre bi man nag bu may dem comme déew ma xaw ma lu fa xew mais wër na réew yi nga xam ne ñoo ñu wër. Euh, accord yi mu fa am pour que ubbi leen frontières yi nit ñi mën a du dugg indi mm-hmm. seen xar yi mm-hmm. bu dajeek li ñu yor fii xëy na euh, euh, danañ am li ñu soxla li ci des kay est-ce que suñu sàmm yi nga xam ne nag ñoom fii lañ fekk baax du ñu génn fii bu ñu jaayee fii la ñuy des est-ce que ñoom it duñ ci loru. Mhm. donc nag nañu sooraale loolu aussi bañ a wax rek nañu ubbi lépp ubbi bi na am fu mu yem. Mhm. mu mu am quota mu am loo xam ne bu ñëwee. problème bi mooy est-ce que ñi nekk fii aussi am nañ suffisamment donc de de de. bétail loolu laa wax xam nga bu ñu amul. boo fekkente ne dañoo war a jiggaani cinq cent euh, euh, mille moutons. Mhm. donc euh, boo boo bàyyee mille et quelques ñëw. donc da ngay da ngay yaa ngi yaa ngi yàqal ñi nga xam ne aussi fii lañ nekk donc waxuñ ne bu ñu indi mais indi bi dafa am war a fu mu am yem mhm. donc dañ ci war a waxtaan ak gën a waxtaan ak éleveurs yi ñu ngi waxtaan ak ñoom mais li ñu war a indi mhm. duñ ko limité ñoom dañ naa rek lii lañ soxla lii am na ci réew mi ubbi nañ mais boo doo ubbil suukar doo ubbil soble doo ubbil pomme de terre doo ubbil len xar yi rek ngay ubbi quand même loolu aussi war nañ ko seetaat xam bu ñu ubbeef dafa am fu mu war a de bétail bi ñu ngi wax ni dafa dafa loolu nee nañ 5000 lañ ko fixé. non loolu. bi li li li état bi di la chaque année non la doon demé amul lenn lu ci yok ma mu wagné kon amul lu ci changer amul lenn lu ci changer aliment bi dafa cher mais aliment bi nga xamné depuis 2012 le ko président Macky Sall subventionné won génne ay milliards dougal ko ci li wax opération sauvegarde du bétail mm-hmm. chaque département mu am fonds bo xamné fa la nek bu tabaski joté dañuy génne euh, waat fonds yoyu dem jënd aliment jox éleveurs yi bu fekkente ne saaku bi dix mille francs lay jë état bi moo lay subventionné cinq mille bi yow cinq mille francs ngay fay pour am saaku bi loolu fii lañ ko fekk wàññi wuñ yokkuñu Mhm. donc loolu euh, fan fan lañ koy fan donc du point de vente yi lañ koy en général région de Dakar comme euh, euh, je pense que gouverneur ak préfet Le préfet yi ont supervisé le comité Ils nga fait des opérations pour indil mhm. je pense que gouverneur Dakar a une expérience mais mais mais mhm. c'est juste pour pour la tabaski Oui, si boobu mais mais non même même bou tabaski chaque département a une autonomie mun a dem jënd parce que fond baa ngi foofu. loolu président Macky Sall daf ko fa defoon depuis 2012. Mhm. et chaque année mu doon yokk xaalis bi ba mu am fu mu toll. loolu euh, kuréel yi ak euh, les préfets ñoo ŋànk mbir moomu. Mhm. loolu heure bu leen nekk dañuy def seen opération euh, mhm. dem jëndi jaayaat aliment bi. te mooy gën a yomb. mais nag période tabaski rek la ñuy dem ci marché yi yóbbu ko foofu mu gën a jege éleveurs yi. yow ci éleveurs yi nga bokk yow yow yow defe naa yaa ngi yaa ngi yaa